bi moom mooy mon consultant Moustapha Gueye bonsoir tonton. Euh, bonsoir ma nièce maa ngi lay delloo nuyoo. toujours très toujours de bonne humeur. merci li ñu fàtte aussi suñu ginnaaw le concepteur hmm, de l' émission pour ne pas dire encore le. producteur exécutif exécutif Mbaye Fall est derrière nous merci beaucoup mon consultant alors comme ni ñu koy defee chaque fois dañuy daal di commencer ak wax leen li leen di xaarandi ci seen biir émission lay du ceeg alors ma daal di njëkkee ak jaarale ci sommaire bi nag wax leen li nga xamante moom la njëkk a ubbee tey muy métier alors dinañ commencer métier invité nañ benn xër bu xarañ boo xamante moom mu ngi tudd Sidaat Thioune su ma doom bàyyi bu ca jógee ñu daal di jàll ci lutte simple lutte avec frappe lutte avec frappe nag xam ngeen ki nga xamante ne moom laa koy bàyyal mu décortiquer ko mook tonton Tafa muy sama sama frère sama jo muy ki nga xamante ne moom mooy Cheikh Tidiane bu ñu ci jógee ñu daal di jàll ci suñu première affiche première affiche bi moom consultant tànn na ñaari mbër yu xarañ yu fas yéenee daje le avril 2017 ki nga xamante ne moom la tànn muy double moteur double moteur nag mu ngi bokk ci écurie Rebeuss ak moo fas yéenee bëree ki nga xamante ne moom mooy buñ ca jugee ñu daal di jàll ci suñu deuxième affiche kii nag mooy DJ DJ moom mu ngi bokk ci écurie Doudou Bakassar alors Doudou Bakassar écurie boobu la bokk moom moo fas yéenee daje ki nga xamante ni moom mooy remorque remorque nag moom mu ngi bokk ci écurie Balla Gaye numéro 1 buñ ca ñu daal di jàll ci suñu premier jël premier jël moo consultant tànn na ñaari mbër Cobra 2 ak ki nga xamante ni moom mooy Goro Sok buñ ca jugee ñu daal di jàll ci li nga xamante ni moom mooy zapping avec l'aide ñu daal di jàll ci suñu deuxième jël Yanda la moo moo doon ki nga xamante ni moom mooy Alioune Seye numéro 2 alors loolu moo ñu fa yéene xaar ci seen émission l'œil du tigre alors tout de suite daal di démarrer ak li nga xamante ni moom mooy la première rubrique muy métier ànd ceeg bu baax koo xamante ni ñu ngi koy Franck miin ngeen ay jaroore Franck ah bii passé yaa ngi wax ay baax baaxam ci li nga xamante ni moom lay def ci xeetu mbapat li nga xamante ne moom la ci nekkee champion li nga xamante ne moom lay bëree à chaque fois te ku mu bëree da lay daan mm-hmm. te ci yu leer la ko teg. très bien muy Franck. muy ah Franck naa Franck de xam naa la mu def Joal de. exactement. <laughs> alors Franck tey Franck tey moom lañu jël métier. Sida Thioune suñu doom bàyyi moom moo fa jaar dañ koy suivre après on revient sur le plateau mon consultant wax ci Franck à tout lay def champion te yàlla suñu borom jël na ko. et trois qualités hein? trois qualités à des prix yi am Sénégal fii okay. am nañ ko fi à des prix mhm. fer bi aussi am nañ qualité yëpp douze fer importé fer normalisé local lourd yëpp am nañ ko fi lépp ci qualité fer la dafa am fer importé mooy bi xam ne dañ ko jéggaani mais moo importé oh xam nga dañ ko jéggaani yaa le fer local local douze mètres xam nga yooyu yëpp am na fi xam nga métier moom tollu métier bi fi tollu léegi day day liy dox léegi tey mbër bu tey mu nga dem jënd wut sa koot na ku soxla pièce nga dem jënd si moom yow monte ku soxla pneu ku soxla berceau ku soxla rotor ku soxla moteur ku soxla boîte comprend j'aimerais bien que nag loolu ma xam ko ah ñu toog euh, def jotaay bu mel nii métier aw moo mbaa yoo xam ne waroon naa mën a war a sama mun bëri gën ma gën a metti nag loolu bokk na si mbëri yi nga xamante ne daal vraiment ñu ngi au devant de la scène di bëre ku ci nekk dañ defee show métier loolu nag ñu ngi ko lancé fii ci bateau mouche bi nga xamante ne mu nekk ci Paris. am na ñoo xamante ne am na nañu métier tamit mais danoo bàyyi mu nax saay tey ban message ngay lancé pour le Sénégal. tey message bi mooy lancé waxuma sax mbër yi mais maanaam jeunesse bi. Mm-hmm. jeunesse bi. tey ñun kenn ku war nga mën a am sa métier bu dëgër. dama ni am sa métier rek a wóor xool leen tey mbër yi nga xamante ni yàgg nañ ci làmb ji te na métier xool leen tey mbër yi nga xamante ni koo ci gis ku ne tey mi ngi def année blanche mbokk yi am sa métier rek a wóor. c'est tey champion ma war a jël tey dama l'œil du tigre nee na ma HLM Grand Yoff en fac en face stade Léopold Sédar Senghor bon en tout cas je crois que je suis bien arrivé ah je crois bien mbokki téléspectateurs yi seetaan miroir du Sénégal salaamaaleykum euh, nuyuwati na leen dans l'œil du tigre xam ngeen ne nag chaque mardi man la ak yéen chaque ak mardi xam ngeen ni dañuy ñëw indil leen li nga xamante ni moo di votre rubrique métier métier nag mooy li ñëpp war a jóg te ne ci tey no invité ki nga xamante ni moo di Franc Franc nag di un champion di un lutteur mais aussi ko am métier ban métier lay def chaînage boo déggee ni wax chaînage mooy ñi nga xamante ni que maanaam nooy dagg feer yi euh, di ko lëmës ak euh, findi feer yi euh, jël feer yi maanaam teg ko ngir nu mën ko raax si suuf mais daal en tout cas il va donner des explications claires tey nag dañuy ñëw seet Franck Franck eh, li ngay natt nii di ko dagg di ko dagg lan la mhm. li cadre la. waaw sama patron moom lay cadré. lii nii. lii. ah tey koy ko dugalee fee jël griffe cadré ko quoi. ah bon ok mais sànq ba léegi nag yaa ngi jóg quoi eh, ce que benn instant léegi mën nga def tuuti pause euh, nu waxtaan tuuti ñun ñaar. Ah, waaw ok. lu gars yi naan yaa ko teree neex. ah xaar moom mooy bi lasikiri bi. Ah, bi mooy lasikiri bi. Ah, xam nga nag loolu laay bañ. ni ngay taxañee gars yi ci biir làmb jeeg yooyu. bu ma fi taxañ nag. non man moom la am ak ci liggéey yëpp. da ngay yëngu. waaw te su ma leen nii. xam naa ne ah. <laughs> cërëm. <laughs> xam naa ni xam naa ni xool xam naa jox naa la tànk bu yàgg. Franc bëggoon naa nga wax téléspectateurs yi lay seetaan lan moo la dugal ci ci euh, chaînage. métier bi dama kaa bëgg rek loolu moo ma ci dugal fekkee tamit sama patron aale dama bàyyi jàng moo samay mag ñoo ànd quoi dama bàyyi jàng ba léegi dama bàyyi jàng di def école di def football nekk benn école de football fekk moom mu ngi doon liggéey fi mu doon footballee ci école bi fa la doon liggéey ma pare rek loolu jour mu ne ko waaye doo ñëw fi di liggéey yooyu noonu ma ne ko waa amul pour man sax daf may tooñ yooyu noonu te fekk liggéey bëggoon naaw quoi mm. pour man daf may tooñ mu léegi nag mënoon suba nga xëy si kon noonu laa moom quoi léegi di liggéey. ñaata at nga nekk ci. métier bi presque nekk naa ci trois ans. ok waaw. ok euh, la lay tey. waaw métier bi maanaam ba léegi nii fu mu nii sax damay métier bi dama koy def. Hmm. damay bëre nag damay dem bëre ji te damay dem ci àll bi ci mbapat yi di bëre mais su ma après loolu noonu métier bi la. Hmm. waaw moo njëkk quoi. lu tax nga ni moo njëkk. bëgg naa sama su sama su ma ay doom sama doom yi ñun ma jàngaleen ci métier bi. waaw bu ñu jàng ñii ñii bu ñu jàng école ñu jàng mais ku ci jàngul rek foog mu na liggéey. parce que métier dafa baax quoi. waaw. Euh, Franc gis ne ni euh, depuis tout à ba léegi euh, dañu gis fer yi dafa am différence. damay gis fer bu sew fer bu dijj di gis fi de fer mais loolu lépp di ngeen ko defar ba mu nekk dara. mais lu ci loolu lépp ngeen di defar ba mu taxaw ba nekk fer euh, loolu lépp ci la ci ci bu ci nekk rek fan la jëm. fer 6 moo nekk nii. bi mooy fer 6. waaw moo ne moo nekk nii. mooy bii. waaw ah, exactement. bi mooy fer 6. waaw gis moom laa moom laa. moom nga doon dagg. waaw ok léegi boo ko daggee pare. dama koy dama koy dem yóbbu fer laa ko yóbbu cadré ko. Mhm. su ma ko cadré après ma ma teg samay fer. Mhm. huit fer. ok su ma ko tegee foofu dugal ko fa ci cadre bi. Mhm. taxu ko su ma ko takk ak fini fer yi ba pare léegi su ma ko jëlee dama koy monté fii nii séenage mooy remplir fii fer douze yi. gis nga mën nañu ñëw dugaat ko mooy taxaat permettre mu nekkal beneen dal. ok defaat beneen dal. am na ñoo xamante ne am na ñu métier tamit mais danoo bàyyi mu nax saay tey ban message ngay lancé tey message bu may lancé waxu waxuma sax mbër yi mais maanaam jeunesse bi. jeunesse bi tey ñu kenn ku ci ne war nga mën a am sa métier bu dëgër. jàpp ci. parce que métier doon na loo xam ne bu ëllëgee. moo lay téye moo lay yor. comprendre nga. souvent tamit suñu mbokk mbari yi ñoo xam ne ñoo nekk ci sport bi di leen wax tamit ku ci amul métier nga wuti métier parce que làmb day jeex. tey su ma lay laaj. ana lu la gën a marqué lu la métti sa carrière aussi. tey suma papa. magam maa ngi koy ñaana yàlla suma tëdd. yàlla na ko suñu boom yërëm. te xaare ko àjjana. loolu dama doon toog mu ne mu ne ma ma jóge ma jóge entraînement ba ñëw ni mu ne ma. sa métier rek a xool leen tey mbër yi nga xamante ni yàgg nañ ci làmb ji te amuñu métier xool leen tey mbër yi nga xamante ni koo ci gis ku ne tey mi ngi def année blanche mbokk yi am sa métier rek a wóor. ma jóge entraînement ba ñëw ni mu ne ma ma lay def champion te yàlla suñu borom jël na ko. Et trois qualités. Hein? Trois qualités. yi À des bons prix. Am Sénégal fii. ok am nañ ko fii à des prix. Mhm. fer bi aussi am nañ qualité yëpp douze. fer importé fer normalisé local lourd yëpp am nañ ko fi. loolu lépp ci ay fer la dafa fer importé mooy bi nga xam ne dañ ko jéggaani. ok te moo importé. xam nga dañ a local. local douze xam nga yooyu yëpp am na fi. xam nga métier moom tollu métier bi fi tollu lay day dox. Mhm. di dox léegi tey mbay bu tey mu nga xëy dem jënd wut sa coordonnée bi ñoo indi say pièces de change teg ku soxla pièce nga dem jënd si moom nga monte ku soxla pneu ku soxla berceau ku soxla rotor ku soxla moteur ku soxla boîte comprend j'aimerais bien que nag loolu ma xam ko ah ñu toog euh, def jotaay bu mel ni métier aw moo combat yoo xam ne waroon naa mën a war a sama mun bëri lu ma gën a metti nag loolu bokk na si mbir yi nga xamante ne daal vraiment ñu ngi au devant de la scène di ku ci nekk dañ dafay show métier loolu nag ñu ko lancé fii ci bateau mouche bi nga xamante ne moo nekk ci Paris. merci beaucoup sama doomu Baye jaajëf waaye gis nga Franck de ah gis nga fi nga xamante ni fa la fa la mujjee ak métier am alors mon consultant dañuy enchaîner ak li nga xamante ni moom mooy lutte simple. man mbappat daf may neex may koy wane ci li nga xamante ne moom mooy lay juteeg parce que c'est très important mbëri di fa commencer mm. comme tu l'as si bien expliqué alors dañuy daal di dem xool li nga xamante ni moom moo amoon Adrien Senghor bu ñu ñëwee nga gën a faram-fàccee yi nga fa gis voilà. bismillah bismillah ayca Joko njal allié nene xaye i numtooxiida mene na arène Adrien Senghor euh, association des amateurs de lutte simple a organisé meke a mbi'tan na arène Adrien Senghor a ndoonan euh, na kima ke koy Adama Jali fe na Kaolack euh, fa Momo Ngom fe na Gandiaye den na mbelandayo pir tey li fi xew des amateurs de lutte simple ñoo organisé tey ci arène Adrien Senghor ni ma koy faral di tuddee le temple de la lutte simple ñu tegal mbër yi 500000 dañuy soobu rek ci arène Adrien Senghor déglu ki nga xam ne moom mooy Adama Jali bu Kaolack ak ki nga xam ne moom mooy Momo. moom mooy yóbbaale trois cent mille Ablaye Mbaye am cent ñaar ñu daanu demi-finale ku nekk am kon nag lii moo fi xewoon tey ci arène Adrien Senghor ñu leen di jox rendez-vous ci beneen dimanche ci même heure même télévision fii ci arène Adrien Senghor. moo consultant naka nga gisee euh, lutte simple yi nga xamante ni moom mooy am foofu ci Adrien Senghor. déjà mbégte lay doon trop si ñun pour ñuy taxaw di wax ci li jëm ci bëri simple. ndax mhm. jaar jaar bu ci def. waaw man man bëri naa lu mat juróom-ñaari at bëri simple laa tamit dugg ci arène bi. Hmm? donc loolu dafa lool sax femme daf ñu indi ci rek actuellement mbër yi nga xamante ne ñoo nekk ci traditionnel bi di bëri ñoo nekk les champions de demain dans la lutte avec frappe. wane nañ ko. dafay feeñ ci combat yi am fan yëpp sax ko parce que ils sont dañuy bëri. d'accord ah te nag nit ki nag. fekkee da ngay compétir tout le temps tout le temps boo amee combat ci arène bi su yàggee da ngay commencé am avantage. ok waaw bi ki topp nag moom mooy ñu demander un peu rek un peu d' aménagement ci xam ne ñu organiser parce que gis nañ ne. ay image yu baax la ñu bëgg ay image yu leer la ñu bëgg mais malheureusement y a beaucoup de monde qui traverse d'accord caméra yi gars yi dañu koy traversé trop dafa a am désordre tuuti waaw te ñu ne bon comme dañoo jël parmi télévision yi nekk Sénégal yëpp nag boo ñu seetloo euh, fii rek demee lutte traditionnelle di ko jël lutte traditionnelle gars yi tàmmuñu di ko jël déedéet ñun xuus nañ ci ba sori ci ba mootuñ koo bàyyi parce que mooy suñu cosaan dañu bëgg partout au Sénégal. fépp fu làmb am bëri simple ñu dem jëli ko mais nag bu ñu gënee jëli aussi pour tegaleen image yu rafet nag foog mu nekk yoo xamante ne euh, euh, gars yi dañuy traversé caméra yi saa bu ñu koy traversé rek mooy dañuy perte ay mhm. donc loolu la ñuy demande rek ñi nga xamante ne ñooy lutte simple bi ñuy aménagé bu baax pour les la télévision parce que làmb tam gis ngeen ampleur bi mu jël làmb simple léegi mu ngi dem di dabi li nga xamante ne mooy arène bi. Mhm. ñu ngi commencé di proposer ay bu njëkk ay saaku ceeb la woon sàqu ñam bi maintenant mu dugg ci ay commencé ay dix mille francs quinze aujourd'hui ñuy wax ay somme bi gën a mag mu nekk dix millions de francs CFA mhm. xale yi di ko xëccoo maintenant nag kon war nañ gën a aménagé waat boobu gën a rafet gën a neex a xool maa ngi koy nuyuwaale dafa yàgg bëgg di xaru ci bëri simple foog ñu ciy taxaw en pleine réunion doon wax manga ne manga yow Tafa Gueye yéen fi bëre bokk ci comité bokk ci CNG bi di ngeen war ci bëri simple bi. pour mu mën a ñoŋ aujourd'hui am nañ ay quelques avancées mais nag foog ñu gën a raxasaat mu gën a propre ma jàll ki franc franc barki Demba Ndiaye rek daan na fi mbër bu ñuy wax njaga Doole. Joal. Joal mu dem fa jël li nga xamante ne moom mooy 1 million 250 mille mhm. te alors que franc cachem ci arène bi àggul 1 million. kon nga xam ne kon lamb traditionnel am na importance. Mhm, di nga bëri combat yu bari mu jox la condition physique jox la doole jox la ay ndam yu bëri. ba pare nga gagné plus d' argent. imagine toi France son dernier combat il paraît que 750 000 lu ko bëri xam nga dem Joal gagné fa donc bu ñu tegoon 10 millions aussi dafay gagné dans les 6 millions et quelques. donc nag conseil bi gën a baaxaat rek mooy même que nga nekk ci arène bi di xaar benn combat par an di ko bëree. je pense nga dem di bëri ji di compétir ci bëri simple yi d' di ko boole ñoom ñaar. jeexitalu combat sax indi na ko encore ci diggante mbër bi tudd Gora Sock dinañ dinañ ci ñëw léegi tout à l'heure ci jël bi mhm. Gora Sock pourquoi moom avantage bi ci digganteem ak adversaire bi doon bëreel parce que tout simplement dafay nooson mbapat yi ci biir saison bu tijjee ba léegi dafay voyager di bëri ji ay compétition donc bu combat bi yàggee rek aussi dafa benn gain bu am ci biir combat bi digganteem ak ki nga xam ne moo nekkoon Cobra la lutte traditionnelle muy mbapat merci beaucoup mon consultant ay suñu daal di jàll ci li nga xamante ni nag avec frappe loolu moom dama koy bàyyi ak sama ndarndar bi muy ki nga xamante ni moom mooy Cheikh tijan Diagne alors euh, retrouvez-le juste après ce qui jërëjëf euh, soxna Fama Thioune jërëjëf itam mbokk yi euh, seetaan télévision Futur Média seen émission œil du tigre ñu am mbégte loolu euh, seq ak plateau bi nga xamante ne moo di Moustapha Guèye di consultant escalité Moustapha ñu ngi yaakaar naa ni dañuy daal di jublu ci nga xamante ni moo xewoon ci stadium Iba Mar Diop foofee nag jàppale ni 23 avril bi weesu woon nag amoon na ay combat bu njëkk ba nag mi nga xamante ne moom lañ leen fas ne kon bokk yeggee moo di diggante Lastander bu écurie Cambérène ak ki nga xamante ni moo di Pape Boy jinne bu écurie Waalo loolu nag mën nañoo jàpp ni par décision arbitrale ndax euh, arbitre bi moo daal di jël kon boog euh, décision jox ndam ki nga xamante ni moo di euh, las de ndeer am itam beneen combat bi nga xamante ni mi ngi amoon ci diggante ki nga xamante ni daal moo di ñàkk jariñu bu caaro yi mbooloo ak Moussa bu Moussa Balla bu écurie Dóor jàppale nag combat googule ki nga xamante ni nag moo di ñàkk jëriñu bu caaro yi moom moo ca daal di am ndam ci diggante mag Moussa nga xamante moo nekk écurie dóor dóoraat Moussa Bobo Balla Gaye comme ngeen di gis ni comme ça sur les images euh, gis ngeen ni nag euh, mbër yi euh, ñoom ña nga ca xanaa rek ñu daal leen bàyyi ngeen seetaan gi la combat na muy mujjee ci diggante last ndeer bu Cambérène ak ki nga xamante ni moo di Pape booy jinne bu Waalo loolu nag jàppale ni par décision arbitrale kon bokk ñu seetaan mbokk yi ñoo ko gisandoo gis ngeen euh, finalement combat googu mujjut ak ndax ki nga xamante ni moo di arbitre bi moom moo daal di kon bokk euh, joxe li nga xamante ni daal euh, moo di verdict gi le combat jox ndam ki nga xamante ni moo di Lac de Nder nekk ci écurie Cambérène ci digganteem ak pap Boy Djiné bu écurie Walo di ab combat bi nga xamante ni par décision arbitrale la mujjee geneen combat ñu daal si dellu ba tey ci stadium ma Mar Diop foofee jàppale ni tamit diggante ñàkk jëriñu la woon bu caaxuy mbooloo ak Moussa Balla Gaye Euh, dooraat nag ka ca mujj am ndam moo di euh, ñàkk jëriñu bu euh, caara yu mbooloo bu fekkente ne ni kon bokk combat bi disponible na ñu daal di kon bokk dellu si wax leen ci li nga xamante ni daal moo co xewoon foofule ci stadium Iba Mar Diop lu ci mën di am rek jàppale ni ñàkk jariñu bu caara yu mbooloo moom moo ci mujj am ndam ci diggante mag Moussa Balla Gueye bu écurie door dóoraat ñu daal di dem kon bokk stadium Iba Mar Diop daal di dellu waat Euh, ndam bi nga xamante ne ñàkk jariñu bu caaroy mbooloo mujj na ko am ci diggante mag Moussa Balla Gaye bu écurie Dordorat gannaaw bu mu ko songee sa waaye mujj kon bokk loolu di jël bu set wecc bu amul benn werante euh, na combat waaye bi la yoon moo di combat spéciaux yi boobu nag jàppale ni euh, ki nga xamante ne nag moo di Gora Sock bu Dordorat mujj naa am ndam fayul ki nga xamante ne moo di Moussa bu Balla Gaye bi ngeen jot a seetaan léegi mu mujj kon bokk nërmeelu ci diggante mag ñàkk jariñu bu caaroy mbooloo Gora Sock nag bu Dordorat moom dafa daal di am ndam ci diggante ma Cobra bu écurie Pikine Mbolo ñu daal di kon bokk seetaan googale combat dellu si kon bokk mi ngi noonu di combat yi nga xamante ni ma nga amee woon na foofule ci stadium Iba Mar Diop am na nag kenn gu des moo di grand combat bi doxoon ci diggante Alioune Seye bu écurie Walo ak Yanda bu Parcelles Mbolo boobule combat itam jàppale ni ki nga xamante ni moo di Alioune Seye 2 euh, bu écurie moom moo ca mujj am ndam yaakaar naa dañuy daal di kon bokk seetaan si image yi ba pare dellusiwaat kon bokk mi ngi nii ngeen sa ko seen voilà kon bokk ñoo ko gisandoo combat yi nga xamante ne moo amoon ci stadium Iba Mar Diop euh, ni ki le 23 bi euh, weesu woon maanaam weekend bi weesu woon euh, di ab lutte avec frappe kon bokk jot ngeen a gis combat yi nga xamante ni moo sa jotoon am xanaa rek laata rek ñuy daal di kon bokk dem daal leen jox yenn ci ay résultats yi nga xamante ni ba tey moo amoon foofu foofule ci stadium Iba Mar Diop ba tey ci wàllum combat jàppaleen nag Sagnambour bu HLM Sagnambour 2 bu HLM Guédiawaye moom nag mujj naa am ci diggante mag yëmbal ASECNA bébé diwaan bu écurie Mor Fadam moom dafa daal di am ndam ci digganteem ak bébé disque bu euh, xéwal gi Léopold bu jàmm gën Sicap Mbao moom daan ki nga xam te ni moo di jam teeri 2 bu Falaye Balde Ardo bu Dóor Dóoraat moom itam mujj am ndam ci digganteem ak euh, ki nga xamante ni euh, moo di bu Siteu bu écurie Mor geneen ko combat bi nga xam te ni bu moom it bàyyi xel itam ci préliminaire yi diggante Zal Bambey bu Bawol Mbolo ak nga xamante ni moo di 5-5 bu les nag par forfait lañ mujj daan ki nga xamante ni moo di Seng Seng euh, bu les Tigres euh, ci wàllu combat euh, ki ñu ngi ko doon amal niki kon bokk weekend bi weesu ci stadium Iba Mar Diop yaakaar naa ni du leen sori ndax dañuy daal di dellusiwaat ci plateau bi ànd seeg Moustapha Guèye di suñu consultant escalité ak soxna Fama Thioune ñu daal kon bokk wéyee seen émission ci kanam tuuti rek ma daal di kon bokk gannaaw li nga xamante xamante ni lañ merci beaucoup cher Tidiane ñu daal di enchaîner mon consultant li nga xamante ni moom mooy suñu première affiche tànn nga ñaari mbër yu xarañ tànn nga ki nga xamante ni moom mooy double moteur. bu écurie Rebeuss moo fas yéenee daje ki nga xamante ni moom mooy Alioune Seye bu écurie walo ñoom ñaar ñoo fas yéenee daje incha allah ce sera le 29 avril 2017 mu ngi amee fi nga xamante ni moom mooy stadium Iba Mar Diop lu nga tànn ñaar ñooñu. double moteur déjà nekk écurie Rebeuss. Mhm. nekkoon auparavant écurie Fass jaar na ci tàggatu écurie Fass. waaw boobu ba léegi nag mu def ay performances. vraiment. di gagné ay combat ba pare yàlla dogal nag mu bokk ci xale yi bari mbooloo. Mhm. am condition physique bu extraordinaire boo xamante ne bokk na ci li may neex ci mbër di ñëw ci combat di pare. Mhm. Eh, nekk na mbër boo xamante ne nekkul mbër bu yàkkamti nekkul trop mbër bi nga xamante ne aussi. dafay tekk-tekkal day ñëw def ay combat ok waaw yow léegi daal. Mhm. mi ngi koy jik eh, mi ngi am ay victoire. d'accord. dem nañ seeti ko nag. waaw woon ñu lii nga xamante ne moom ngeen nar a gis. ci image yi comme entraînement. Mhm. nekk na lu ma doy li ma woon quand même. doy na la doy na ma trop ci li ma doy moom ki nga xamante ne mooy double moteur. d' kon nañ ko découvrir ndoo ak mbokk yi ñu xool affiche ki nga moom mooy double moteur ak ki nga xamante ne moom mooy Alioune Seye regardez. mbokk téléspectateurs yi ak seen émission L'Oeil du Tigre day gën a ubbeeku day gën a yaatu mbër yëpp fu ñu nekk. dañu ko fekk defal affiche. man Lac de Guiers 2 affiche moo may daaneel ndaxte mooy tax nga xam mbër bi moom mooy kan. affiche. booy remarque 2 wax ñu bëri mbele mbele la comme que nee na ma dàq bëri ba jour lamb di lay comprendre. affiche avec Didier. di ko wax ni fi mu toll nii liggéey xajatu fi sax laa koy wax mu am jàmm bala 30 kàttanu yàlla. dañuy bëre fa ñu nekk lundi ba vendredi dañ koy contact. gars yi loolu lañ gis. mais buñ dalantee ñu xam kon moo ëpp doole. su ma su ma xeexee yow dinaa di ma jumloo yow mënoo ma jumloo li ma gis nga xëy bëree di ko xeexee boo xeexee ma dóor la nga nelaw bul sonn. loolu lañ foog rek xam nga ni ku nekk sa gis-gis rek te leer leer na ma su ma ko jàppee dina dinañ xam ne ku ëpp doole. non parce gëw ma mu woo man ci xeex loolu loolu gars yi duñ ko ko sant. man maa ko gën a pare maa ko gën a nekk xale. ku yi bokkul. man Lac de Guiers 2 affiche moo may daaneel ndaxte mooy tax nga xam mbër bi moom mooy kan. le 29 bi laa war a bëri sama septième combat am nag Alioune Sèye Junior. waaw man la Alioune Sèye Junior maa ngi war a bëri Double Moteur le 29 avril stade Iba Mar Diop. waaw Alioune Sèye Junior moom xam naa ci moom ay qualité yu yu baax daal parce que champion la maa ngi koy suivre bu baax ñu def ay jéegoom moom moo ñu jiitu ci lamb nag. waaw Double Moteur euh, man euh, benn combat ak seetaan muy moom ak Boy Niang numéro 2 waaw gis naa ko daal day bëre daal bërekat la waaw. dëgg la mën na bëre trop mais ñun loolu jaaxaluñu parce que ñun ay xale lañ ak di liggéey te dañuy liggéey ci côté yëpp daal. non xeex moom du ko def ndax maa ko dàq xeex du xeex ak waaw ba tey comme li ma waxoon rek laa ñëwaat ñun ay xale lañ di liggéey rek topp suñu ginnaaw gannaaw ñuy tënk lu adversaire bu ñu jëlee xam na ñu war a liggéey kon maanaam xeex bi bëri bi jaaxaluñu. soo bu baax mu gën a neexati a song. man en tout cas daal nañ lépp. waaw bu ma woowee ci xeex ñu xeex su ma woowee ci bëri ñu bëri. waaw Double Moteur daal lu ma ko yóbbante daal mooy na bàyyi yooru na bàyyi yooru bi tey bëre di xeex. waaw message bi ma koy moom mooy message bi ko ñëpp di mooy message bi ko waa Rebeuss yëpp di wax mooy na taxaw dëggal boppam bés bu taxawee dëggal boppam dina xam ne ji ne mun dem. waaw waa Rebeuss dan la yeb di la yebbi ndax la 29 la lay weddi nga xam ne yow doo dara. waaw man samay supporter comme ni ñu ko daan defee rek parce que ku xam waa Rebeuss xam waa Dakar Plateau xam nañ ci non à la violence ñun mosu ñu di coow ci làmb mosu ñu yàq làmb mosu ñu benn problème ci làmb. sama gars yi man man sama supporteur yi ñoo dëkk chaque jour ñooy nekk bés bu yàlla sax ñooy nekk gars yi ñu ngi koy pare ni ñu ko war a pare. ñu bëre ko si jàmm ma daan ko si jàmm waaw mu nekk euh, fair play waaw bañ a am bañ bañ am dara loolu léegi laay ñaan ay supporter am di ko ñaan sama supporter waaw. si jàmm ak salaam di ñaanal tamit waa Kambale ñëpp jàmm ak salaam ba bis ba xam ñu def ko si fair play non à la violence yàlla may ñu ndam. maa ñëpp di wax Asumaare ne waaw lépp dina baax daal métti na trop mais tamit lépp dina baax waaw di gërëm sama grand frère yàlla ko yàlla bàyyi am fan bu gudd bu wér moom ba mu fekk sama njariñ waaw di gërëm ñëpp maa ngi gërëm waa yëmba yëpp di leen woo di xam combat bi nii man maa ko soxla man maa koy bëree sama bopp waaw maa koy bëree sama bopp waaw maa ngi waaw maa ngi ñaanal ñëpp daal ak gars yi nga xamante ne boobu léegi ñoom ñooy ñoom ñooy soddu ci affaire yi ku ñu mel ni suñu bopp Diop si ñu ngi koy woo ci combat bu baax a baax a baax ñu jàpp si combat bi xam nga Yakham xam monsieur le ministre ñu ngi koy woo ci combat yi Pascal Bassène suñu doyen ñu ngi koy baax Poupol gars yi ñu ngi leen di woo bu baax ñoom Baba Touré suñu président Saliou Diop ñu ngi koy baax a baax a baax waa sant ñëw di sama mbokk Poulvouré gars yëpp maa ngi waa Sénégal waaw di tamit di féliciter sama turandoo Alioune Seyde ndam yàlla na ko jik waaw ndax combat bi sonn na ci bu baax a baax a baax père Tafa dama bëgg nga nga génne ma lii ak ñu say dë yàlla na ko yàlla fay xolam la ma diine la may yóbbu di ma liggéey loolu metti moom la dugal moo tax la Gueye taalibi Serigne Saliou moom tamit noonu maam Góor Samb sonn na ci combat bi baax a baax a baax a ñoom Abdou Got gars yi ku ma limul da nga juum waa angal sant yàlla bàyyi ma kenn waa Kajoor gi tamit maa ngi gërëm ñëpp nag di di woon sama sëriñ maam Malick si na ko muy muy yokk ñaan yi bu baax a baax maam Malick bu soñ man sóor sama lépp waaw sama àdduna sama lépp maam Malick moom waaw ngay yokk ñaan bu baax a baax ok di wax ne waa Léegi Tigre forever ak fast food bi may coobee tamit Bokar Diela maa ngi woo bu baax a baax a baax ndax moom la bàyyi am lu di ma jox may coob ak Zico café bi nekk fi ibu bu yàggul maa ngi woo gars yëpp waa ñaacookeer sama gars yi xam nga waa kursus ba waa café ga gars yi waa sànni ñeen ñoom ñëpp maa leen di woo waa ñi nag li ma koy wax bëriwul gars yi nañu mobiliser def nañu daan def ma jàpp waa ji bu dëgalee boobu ma duma ko suuf bëri ma yéen ko ba ci ko dóor suuf bokkuñu maa ko bu doole fuuf bokkuñu loolu la am na woo yow na dëgal boobu taxaw bu taxawee combat bi mën minute samay supporter maa ngi leen di jox rendez-vous le 29 avril stade stade Diom Iba Mar Diop dinañ wax sama supporter 11h Aliou Seye 11h lay départ pour dem Lamb ja di gërëm naa maire de ville Issakha Diop voilà li moo nekkoon affiche yu double moteur ki nga xamante ni moom mooy Alioune Seye. yow yaa leen seeti woon naka nga leen gisee physiquement pare nañ wala. Ah, je pense que ne duggoon naa tout à l'heure ci double moteur. waaw ma dem ci Alioune Seye. demal ci donc gis ngeen ko nu mu félicité Alioune Seye bi nga xamante ne mooy deux bi daan dimanche passé. ah, ah donc dafa fas yéene nag moom. topp ki tànk ki nga xamante ne moom mooy turandoom di Alioune Seye 2. Mm-hmm. donc moom. nekk na mbër boo xamante ne mbër bu waane la ci bëre comme Aliou Seye deux bi passé daan. Mhm. ndax gis nañ ay kombaam yoo xamante ne doxal na ci ay façon technique yoo xamante ne man ku ma apprécier la ci bëree ndax gis nga ko nekkul mbër bu njool trop nekkul mbër bu ponkal trop mais c'est un fin technicien moom ki nga xamante ne mooy Aliou Seye junior. d'accord Aliou Seye junior nag dafa jóge ci défaite. Mhm. diggante mag mbër bi nga xamante ne mooy Coens Coens daan Aliou Seye junior nag mhm. jaadu na mais nag. gabari bi mu bëri loolu muy Coins. mu toll ci jëm ak daay taay. Mhm. noonu la double moteur toll donc adversaire ba mu amoon. waaw adversaire bi de ci ci taay ak gabari la amaat. d'accord donc nag li ma waxoon LEC yi deux la kay waxaat rek il faut mu doubler ay effort mhm. pour mën a gagner ki nga xamante ne mooy adversaire bi di double moteur nga xamante ne pay na mbooloo il a le vent en pompe. nekk ci mbir boo xam ne dafa am rythme. donc nag ñaari mbir de faama. Mhm. dañu leen di souhaiter bonne làmb toujours rek continuer encore faama di nekk làmb. macha allah mon consultant alors bu ñu jógee ci le 29 avril am nañ beneen mbër am nañ beneen làmb joo xamante ni fas yéene nañ ko am le 30 avril. Hmm. bii paa nag ñaari mbër yu xarañ la ñu tànn mooy ki nga xamante ni moom mooy DJ. Hmm. mu ngi bokk ci écrit double Bakassar. Hmm. Euh, ki nga xamante ni nag moo fas moom la fas yéene dajee muy remorque. remorque boobu mu ngi bokk ci écrit Balla Gaye numéro 1. exactement ñoom ñaar ñoo fas yéene dajeel le 30 avril te loolu du yomb. alors on va regarder li nga xamante ni moo consultant moom la demoon defee ak ñoom muy affiche jël seen entraînement jël ñoom ñi nga xamante ni noonu la ñu nekk actuellement après di kaat mu gën koo détaillé bu ci nekk ci ñoom naka la ñu gisee physiquement ayca. mbokk téléspectateurs yi ak seen émission L'Oeil di Tigre day gën a ubbeeku day gën a yaatu mbër yëpp fu ñu nekk dañu fa fekk dafa affiche. man Lac de Guiers moo may daaneel. ndaxte mooy tax nga xam mbër bi moom mooy kan. affiche. booy remarque deux. wax ju bëri mbele mbele la comme que nee na ma dàq bëri ba di lay di ko wax ni fi mu toll nii liggéey xajatu fi sax laa koy wax. mu am jàmm bala 30. ci kàttanu yàlla. dañuy bëre fa ñu nekk lundi ba vendredi dañ koy contact. gars loolu lañ gis. mais buñ dalantee ñu xam kon moo ëpp doole. su ma su ma xeexee yow dinaa di jumloo yow mënoo ma jumloo. li ma gis nga xëy bëree di ko xeexee boo xeexee ma dóor la nga nelaw bu sonn. loolu lañ foog rek xam nga ni ku nekk sa gis-gis rek te man leer leer na ma su ma ko jàppee dina dinañ xam ne ko ëpp doole. non parce que gëw ma mu woo man ci xeex loolu loolu gars yi duñ ko ko sant man maa ko gën a pare maa ko gën a nekk xale ku yi bokkul. man Lac de Guiers 2 affiche daaneel. ndaxte mooy tax nga xam mbër bi moom mooy. man la ki DJ ci Mettoules son carte mémoire 11652 giga maa ngi dëkk usine Bentali nekk école de lutte Doudou Bakassar maa ngi am six combats cinq victoires benn défaite. bëri naa dix combats naa dix combats am ñaari défaite ak ñett ak huit victoire. maa ngi war a bëree booy remarque la 30 avril bii di ñëw incha allah. daanaka pare nañ ci entraînement bi ci combat bu ñu jëm nii sama combat sama diggante maag Didier le 30 avril la ñuy bëree pare nañ. li ma xam ci bëree ma xeexam ndaanaan la nag champion la comme champion yi fi nekk ma respecté ko trop waaw loolu daal laa xam ci moom. Didier lu ma xam ci moom bëri na sama entraîneur wax nañu lu bëri ci moom waaw. comme dañ koy préparé non préparé nañ ko stratégie suñu làmb dañ koy appliqué rek incha allah. bu ci xel nag. ma wuyu ko ci lu mu ma woo ma wuyu ko si. Père Tapha xam nga ma xam nga sama dara du yomb ci lu muy baax la rek amul fu su bàyyi xeex bi wala ci moom. sama làmb amateur yi ko soxla yoo xam nga loolu fu mu bëree ñu kontaan. Ah, gars yi ne moo ëpp doole. waaw ci li ñu gis gars yi loolu lañ gis. mais buñ dalantee ñu xam kon moo ëpp doole. dañuy bëre ñu nekk lundi ba vendredi dañ koy contact bëre rek la mbër bu am ci làmb ji am na ci école dañuy liggéey rek. ban école la loolu. école Balla Gaye. lan moo mu mun diw. waaw non ku ci ne am nga droit wax sa xalaat Sénégal moom bu la neexee wax sa xalaat. ku ci nekk am ngay xool li la neex rek nga wax quoi mais tamit magum jëmm bu yeewu fajar di ant xëy di entraîné ji di daj ay coono nga ne diwa ko doole te dalantee guñu waaw day xaw a doy waar. Ah. dégg naa ko ah, naa de dégg naa moom sut dégg naa dem na France naan glace daal di ñëw dégg naa loolu. naan na jël lépp ba arbitre sifflé. xam na jël lépp favori beeg doole jeeg lépp na ko jël ba arbitre bi sifflé. bari bi sifflé lay def. incha allah ma def li ma war a def ñibbi ci kattanu yàlla. wax ju bëri mbele mbele la comme que nee na mu dàq bëri ba jour mu di comprendre. c'est moom ñaar yëpp mhm. ko. nangu ngay yóbbante moom mën moom moom nga xamante ne moom mooy euh, moom mooy waaw benn dama koy ñaanal gudd fan ak wér geeram ak wër bala 30 di ko wax ni fi mu toll nii liggéey xajatu fi sax laa koy wax mu am jàmm bala 30 ci kàttanu yàlla yàlla may ma ndam sedd bi ci kawam. na pare xam ne ci biir baax la dara du sedd bu duggee raag nañ raag ba dugg boîte vocale bëggee bëre nañ bëre ba ci arroisé. Abdourahman Traoré et Yuan Agonrol et toutes les structures de Global SR et toutes les salles que j'ai passées là en Europe pour s'entraîner. Phoenix, US Metro, tout. Will, je te remercie beaucoup. Georges Saint-Pierre, je te remercie beaucoup. Et tout le staff qui se situe en Europe, surtout à Paris. Je suis supporter remorque, remorque 2, du woo sama doomu ndey sama grand Lat Diop maa ngi koy woo maa ngi woo Yaxara Xadi Jaxate Sidaat Bakri Bouka Zali suñu député maa ngi koy woo fogole séeréer mi dijje naa si maanoon fa si ngol noonu mais git maa noonu paax surtout gimmar mais git maa noonu nu ndamtaamu paax mar looj mar sulu mar faafago ñoojoor mais git maa noonu mais santaa noonu jonwaar falya felir faya ko siwo jamnayo bosinka ko bo ngoy fandet mi maga genum maga jegumi ku jeguna it parce que ki jegena hop na pogum mi ko bo ngoy fandet genum ko bo ngoy fama samba dia samba diallo babukar fajut ku refna jan jan gen fajut fo palmarin ngallo mi dije me gitma non tokori bu ndapa mi gitma non pa mi simna non wasanamo hak nak malik sen man koy wo Aïda Sow Diawara maa ngi doo maa ngi woo bépp autorité boo xam ne nekk na Guédiawaye maa ngi woo waa Ibrahima Aliou Sall ñëpp maa ngi woo pour ñu jàpp ci combat bi ba ñu soxlawuñ dara pour booy dem esat na ci gars yi jàpp jënd biir yi xale mun dem esat ñëpp dem esat ñu supporté mbër bi ñu ñëw daan ñu ni si incha allah maa ngi jox sama supporter yëpp rendez-vous muy waa zone 3 yëpp waaw maa ngi leen di jox rendez-vous le 30 avril di masaw ñoom caat ak ñëpp nag di leen wax ni làmb noonu la ak ñoom bébé julde mais affaire bi dimanche la trente la na ñëpp ñëw teew di sant sama sëriñ sëriñ Sidi Mbàkke alxuraan rendez-vous le 30 avril stade Iba Mar Diop maa ngi woo sama supporter yëpp ñu bëree daan ñibi naka nga gisee jàmbaar yi nga xamante ni ñoom nga demoon seeti def ak ñoom li nga xamante moom mooy affiche jëkkër ji Didier. Didier déjà boo ko xoolee mi ngi defee préparation en France. d'accord tudd na US Métro US Métro bokk na ci équipe yi gën a mag en lutte olympique. en France moom loolu tax sànq ba tey mu ngi dosé di wax. français waaw ah, français bon a fait baax nag peut-être. ah mais dañuy war a jàng. mën a làkk français c'est a bind. lu ñu wax ñu xam ko c' important encore. donc li wax noonu lu ñu apprécier la. Mhm. touche la boo xamante ne xale yi war nañ ci bàyyi xel. Mhm. parce que suba tamit làmb dafa war a jëm ci sport étude. da war a jàng école am say diplôme. Mhm. war a sax mën a nekk directeur de société ba pare boo di bëree parce que suñu cosaan la. boo demee au Japon faama. importance bi ñu jox les lutteurs japonais les sumotori yi. Mhm. c' énorme bu ñu jéggi tali oto yëpp amul feu rouge ou feu vert. ñëpp ay stoppé ba ñu jàll ba pare. Mhm. ñu doog a romb loolu cër bu ñu leen jox la ñu a mun nekk sax doomu kilifa doomu président de la sax war a mën a bëri parce que suñu uh-huh. mooy suñu cosaan mu ne suñu deret. ñëpp amul Sénégal bu bëriwul donc gis na kon boo xoolee. Euh, euh, physique am. dangay gis ne mhm. kii kat dafa travailler ci efficacité. rapidité. Mhm. ndax gisoo ko mu nganda ngandaay yooyu. muscle yu la yor. te tamit mhm. am na taille am na aussi gabarit tax di jéeg ma xamoon mu ëppoon nii. dafa jeex dama mën a rappeler rek que ne moom c' était la euh, l' accompagnateur ou le garde rapproché de Wally Seck ñoom mos di ànd. Hmm, mos nañu daje fii ci kër gi Wally di ma ko présenté sax d' ailleurs ah naan ki mooy sa mbër père ndax doo ko jàppale. bon voilà léegi nag mi ngi évoluer dem na France entraîné ñëwaat na di préparer combat bu am importance. Mhm. donc dañ koy souhaiter rek moom tamit bonne chance ci combat bi. mu génn ci bu baax a baax ah. moom noo ko gisee. moom moom Didier. am na chance ci combat bi wala booy am na chance égale la ñaari bëri wala kim dajale ko mën. non ñoom non mënante amu fa ñoom ñaar yëpp ay chance lañ lañ tolloo. 50 pour cent 50 pour di jox bien vrai que nag ki nga xamante ne moom mooy remorque bi moo la ñëw léegi tout à l'heure moo ëpp ay nombre de combats. Uh-huh. mais garab ci kaw lay fekkante aussi. dëgg la. Hmm. ay ci ñu jàll ci remorque. ñu jàll ci remorque remorque déjà man seetaan naa ko ba tàyyi ko apprécier bëreem la xam na benn combat bu mu pertoon sax récemment bëre bu bu neex bu mu bëree sax. ak discipline bu mu àndal dama ñëw fekk wàcc ci luñ bi ñëw ba ci mu koy am di ko encouragé des a damay arrivé. ma mm-hmm. gis mbër bu bëri combat bu neex que écrit boo mënti bokk ça m'intéresse pas ñu daan la. ma ñëw remonter le moral. Mm-hmm. parce que tamit dafa am daan ak daanu. moom nag dafa war a encore relever wu pour revenir ci Didier pour mun ko daan ma gis ne aussi moom dafa xawoon am tuuti poids bu gënoon bari. gis naa ne léegi il est un peu tracé. gis naa ne vraiment fondre na. sec na bàyyi sec yi muscle yi génn nañu moom tamit bu gënee continuer entraînement yi mu entraîné ni ma ko gisee. Hmm. bokkul woon un ginnaaw. donc nag mbir yi ngi commencé comprendre léegi yaram bu bari bi amatul njariñ li am njariñ mooy nga efficace am doole. ku la xool xam ne mi athlète bu am présence nga. Hmm. donc gis naa ne kon kii di remorque 2 bi forme bu mu indi nii bu ko continuer xaw ma ban usine la am ci combat bi mu daan lu ñu ko làmb la bu ci continuer rek un jour euh, bis dina ñëw mu représenté wu ci làmb parce que am na taille am na gabarit mm-hmm. te ñeme na bëri aussi ñeme na xeex yu métti lay bëri donc moom tamit fekk nañ ko mu def ay entraînement yu extraordinaire àndoon ak Lac de Guerre ñoom ñaar ñu àndoon bokk ñu écurie ay xarit mm-hmm. gis nga les grands champions dañuy seet ci écurie yi mbër yi nga xamante ne am nañu taille am nañu gabarit ñuy noosoo ak ñoom pour di contact ak ñoom pour seen futur adversaire mhm. parce que sparring partner dafa am solo trop uh-huh. booy bëreeg mbër da seet ko tolloog mbër ma ngay contact ak moom mbaa ko ëpp mbër ma ngay contact ak moom pour am dara bari nag ay mbër yoo xamante ne suñu grand champion yi ñoom ñoo leen di jàppale ba ñu am condition physique bi ñu mën a bëri jee donc aussi kon nag ñoom tamit dañuy bàyyi xel bu baax ci xale yi nga xamante ne dañoo bëgg a mel ni ñoom ba tax ñoom di jël leen noosoo pour mën a def ay combat man ci sama fin de carrière dama amoon chance am peut-être Gris Bordeaux di peser dans les cent trente kilos may noosonteeg moom. Mhm. ak ñoom Tafa Thiam tu vois ak ñoom Balla Diouf yëpp nekk ay jeunes yu évolué tant que yaa ngi contact ak ñoom rek dangay dem ba mel ni ñoom. donc nañu bàyyi xel xale yooyu ñaari mbir yi encore rek ñu ngi souhaité remorque aussi mu am aussi la chance donc. bonne chance à tous les deux lutteurs. D'accord, merci beaucoup mon consultant. Alors loolu moom di ko fas yéene am le 30 avril au stadium Iba Mar Diop bi nga moo fas yéene opposé ki nga xam ne moom mooy Didier ak Remorque. Alors tout de suite ñu daal di enchaîner ak li nga xamante ne moom mooy su premier jël mon consultant tànn na ñaari mbër yu xarañ tànn ki nga xamante ni moom mooy Cobra numéro 2 moo fas yéene bëree ki nga xamante ni moom mooy Goro Sock. Alors ki nga ciy àndal muy mooy Cheikh Tidiane Diagne retrouvez-le juste après ce qui suit. jërëjëf soxna Fama Thioune jërëjëf itam Moustapha Gueye di suñu consultant es qualité nañ ko waxee nag dañ si daal di jublu ci li nga xamante ni moo di jël bi numéro un diggante Cobra 2 bu Pikine mbooloo lay doon ak Gorosok bi nga xamante ni moo bokk ci écurie euh, Dóor Dóoraat kon bokk yaakaar naa ne Moustapha dañ si daal di jublu nga décortiquer bi li nga xam ne moo di combat bi waaye tey moom yaakaar naa ne Bamos Mao ñu ko dégg tey tey <laughs> Bamos tonton mag la Bamos la ñu dégg tey bismillah merci beaucoup tonton mag Euh, Cheikh Ahmed Tidiane bi dafa nekkoon komba bu ma soxal ñor ma torop ci ñaari champion yi nga xamante ne dañ leen séntu ñoom ñu dem dabi ñoom Bombardier dabi ñoom tous ces grands champions là ci par seen taille ak par seen gabarit ñaar nag foog ñu bëri kenn daan kenn dem kenn des góorgóorluwaat góor a soog seen wàllu ndeyjoor ngemboo ngembul weex li très en forme quand même ah moom góor a bi nga xamante ne moo nekk écrit dóor dóoraat Cobra 2 ngembo lu ñuul li fii di seen wàllu càmm giital tànku ndeyjooram nekk écurie Pikine mbooloo vamos yu dem tonton Mac ñi léewtoo gauche droitier Cheikh Ahmed Tidiane salaamaaleykum maaleykum salaam nga gis nekkoon góor a sokk c'est un woo ko ci xeex daw na slip di bëri ji nga xool son adversaire sigi di ko maîtriser ak beaucoup de sang franc moom ki nga xamante ne moom mooy mbër bi tudd Cobra 2. Vamos ñu dem tonton Mac la riposte ki nga xamante ne mooy Cobra 2 commencé réagir encore ci bagarre bi parce que mbër yi tamit Cheikh dañuy faral di annoncer ay yëf ci seen bu ñu demee jël leen affiche. dinaa ko dóor dinaa ko xeex dinaa ko nangam donc gis na kon kii di adversaire am nekk Cobra 2 réagir euh, par la bagarre diggante ma ki nga xamante ne mooy Gora Sock vamos ñu dem tonton Mac voilà Gora Sock ñëwaat ne coppe tànk ba jàpp tànk bi ki suuf ni mu ko jàppee aussi benn loxo bee dugg benn bi duggul parce que adversaire bi daf ko teel a ko yëg contrôlé ko extérieur ba pare contrôlé ko intérieur moom ki nga xamante ne mooy Cobra 2. donc day wane ni rek a Sock dafa ñëw pour bëre si il est compétitif dafay ñëw bëre combat bi yëpp ah. vamos ñu dem tonton Mac rasu carrément mu sentiiru ko xoolal bëri yéen lañ bëri ñoom ñaar ñi image xoolal combat bu rëy combat bu gudd combat bu neex ñaar léegi nag jàppante war a am góor a Sock dugal loxo càmm ñoom dëbb ko sol. dugal loxo ndeyjooram du moins dëbb ko sol ci côté càmmoñam gis adversaire aussi di yóotu ñaari ngemb moom ki nga xamante ne mooy euh, Cobra li ma xaw a jaaxal ci combat bi nag mooy Cobra 2 Cheikh droitier la annoncé ci bëre bi waaye position bëre bi gauche la indi maanaam boppam fu mu féete logiquement un droitier boppam du féete côté bële boppam côté bii la war a féete ah, bien sûr da koy déséquilibré ah, booy xolaat ci la buy féete côté gauche doo nekk sa doo doo am équilibre bu nga xamante ne moom lañ soxla à moins que boog mu nekk muy bëree ñaari côté yi di bëree côté ndeyjoor ou côté jàmm mu nekk polyvalent mhm. Vamos ñu dem un combat ah, de force moo nekk nii ah jàppante ay gaño toujours dafay jafeel bëree ñaari ponk lu sëqante ay gaño daan dafay xaw a jafe mhm. surtout ku ne dugal sa ñaar loxo te ñaari mbër yi boo leen di pesé nekk nañ dans les cent trente kilos arbitre ñëw intervenir indiwaat leen biir géew bi ah très bien fait ki nga xamante ne nag moom mooy Cobra 2 sànni crochet di gauche mais dafa sànni crochet di gauche nag mais ba tey dañuy gis ne nekkul en garde loxo bii fi mu nekk dafa sori trop parce que booy dóor kurpeñ crochet di gauche sa loxo bi dafa war a nekk fii pour au moins bu kurpeñ ñëwee nga mun ko chassé pour nga mun ko paré mais doo dóoree sa loxo wàcc tu es en découvert doo joxe en jigéente nangoo xeexante góor soog toujours dem na jël na tànk bi encore jàppaat na tànk ndejoor bi ak loxo càmmoñam mais góor soog aussi tànk yi muy jàppee mu ngi koy jàppee benn loxo. waaw justement parce que dama xool ni ñetti tentative yëpp nga xamante ni euh, def nañ ko ci combat bi moo di ki nga xamante ni moo di euh, góor soog bu dóor dóoraat. moom mooy dem chaque fois jàpp ci tànku fi nga xam ne moo di Cobra. waaw ah, mais li tax nag jàpp mun ko réussir mooy benn loxo lay jàppee te ku nekk xam ne tànk. mu mhm. ëpp doole loxo. bu fi taxoo day génn. bu fi taxoo day génn soo jàppee ñaar loxo nag di nga mën a égaler tànk bi. force tànk bi ak sa ñaar loxo. Mhm. tànk loxo benn tànk bu féexatoo rek mu dañ gis nag adversaire bi xaw na mel ni ko xaw a mbaar a pare jël tànk bi ràcc ko di rasu. Mhm. vamos ñu dem tonton Maak. même position toujours sëkkante gañoo. ndengeñante aussi. nga ndengeñante aussi ah là gis ne ko adversaire bi di góor a mu ngi jéem a def percer sur les aisselles mais nag am na lu ko empêché perché bi moom mooy adversaire bi dafa sëq ci gaño gi. ba pare nag ak ak tout son poids du corps naj ko moo tax góor a soog fu ne nii mënul def perché bi carrément il a été empêché vraiment par ki nga xamante ne mooy Cobra un combat vraiment très vivant vamos ñu dem tonton Mag oui góor dugal ñaari loxoom. ba tey même action mooy ñëwaat rek jàpp intérieur extérieur il se calcule extérieur intérieur lii nag moment bii nag c'est très bon pour lutteur bi nga xamante ne moom mooy Cobra 2 parce que féetal na bopp bi fu ko war a féetalee jàppataloo ko càmm ñoom jiital na pied droit am carrément dem na sa ba mel ni da koy waaj a mbaar exactement bëgg ko njatt bëgg ko imposer dugal ko ci biir ci biiram mais Gora Sock nag c'est un costaud nekkul mbër boo xamante ne dañ koy jàpp rek imposer ko njatt ko yóbbu ko ci suuf. très difficile parce que il a maîtrisé te day bëree tout le temps il est compétitif moom bu war a soog. Mhm. vraiment ñu dee am tonton Mag dégg loxo ba ndengeñ nag amaat na position favorable moom ki nga xamante ne moom mooy góor a mu ngi bëri ci côté am voilà mhm. léegi nag la réaction de son adversaire xool contrôle yi. ñoom ñaar nag vraiment dañoo bëre combat bi ah. Hmm. kenn ku ñaan kii moo bëre kii bërewul. parce que bëri na ay séquences yu bëri. ah nga gis nañ ko ci quand tout de suite kii riposte na. parce que cette moo di la première fois ñu gis ko mu jël initiative jëngal ki nga xam ne moo di adversaire. exactement parce que tentative yëpp. ci beneen woote ba la jógee ci. exactement loolu da ngay expliqué rek que Cheikh que ne euh, Gora Sock mu ëpp ay actions yi mu tenté. Hmm. général kenn ki monte deux actions en général ki monte deux actions tôt ou tard mooy mujj gain de cause bi. Mhm. gis na kon Gora Sock tenté na fi trois actions adversaire mi ngi doog a tenté benn action. Mhm. donc mën nañu rek trois à un pour le moment ci action. vamos ñu dem tonton Mag. Sali gène mi ngi gène jàpp bi xamante ne adver deux tenté trois deux voilà là c'est extraordinaire. Mhm. xoolal ki nga xamante ne moom mooy euh, l'adversaire euh, de Gora Sock tudd Cobra wàcc na bu ci suuf jàpp tànk bi laa fii nag moom vraiment adversaire boo defewul rëcc si énorme mu def nii. ceinture na ko ak ñaari loxo yi. non loxo bi dugg na carrément ci suuf bi ci kaw bi ci benn loxo bi. ma ca ngemb la. mais nag góor soog aussi dafa ko contrôler ñoom ñaar ñaari mbër yu tolloo ay doole la ñu ñaari mbër yu nekk ci vrai rythme lañ moo tax ñu bëri combat bu méttee nii. va ma si dem sigiwaat jàpp gañoo. góor soog commencé di dóor. pour am buntu. pour am buntu bien sûr waa ji dugal ñaar loxo yi moom Cobra ñaar loxo yëpp a ci gañe gi. góor-soog sigi ah là là góor wàccaat na ah wàcc bi nag vraiment énorme la. Mhm. ça c' est lii mbër bu amul entraînement mënoo ko def mbër bu tàmmul di bëre. mënoo mhm. ko def. wàcc na sukk na benn ombi complètement ak suuf. Mhm. benn ombi mu teg ko position. pour mu mun ko mun ko soulever après loxo yi ci biir nga xool gu mais xool Cobra aussi actuellement euh, même sax inquiété wul amul benn inquiétude ci li ko waa ngi def te li ko def énorme na def na ko percer sur les aisselles carrément mhm. mais moom moom mbaar ci kawam tëdd ko parce que ñaari xale yi nag mënuñu pesé wuñu lu yées cent trente kilos donc combat bi ni ñu ko bëree nii sax vraiment entraînement yi métti mu leen ci yóbbu vamos ñu dem combat bu yàgg yi mhm. combat bu yàgg combat bu métti amateur yaa ngi taxaw ku ne passionné. dañoo neexoo tolloo doole. exactement mm. tolloo carrière nag. ñëpp leen coow. ngem yaa ngay tasaaroo ndànk-ndànk téere yi tàggoo penn par benn c'est possibilité rek c'est capacité rek yow moo la mën a génn ci li nga jëm nii. Mm-hmm. du téere ba du saafara ba du dara. Mm-hmm. entraînement rek entraînement bi rek moo la ci génne. xel gu ñëw. <laughs> jàppante siggi xool ña ngay siggi di fudd seen ndigg yi. c'est dur ah. kon ngeen yaa ngay tas. waaw arbitre bi day mujj arrêté. gis nga. nañu encore. Gora Sock toujours à l'attaque. Hmm. pour lutter. waaw yootu bi baaxul ci moom. no daf ko intercepté dañoo comprendre te ñoom ñaar dañoo comprendre te mais ce qui m'impressionne mooy li nga xamante ne mooy Cobra côté gauche mu bëree. ah là là ñëw na ci vraie position am. Hmm. un droitier la. téye na liggéey na ci loxo droite bi jàpp na loxo ba filé na ko padd na ko pour wër ko ndomba. mais lan mooy nekk réaction ki nga xamante ne moom mooy góor a soog loolu moo moo moo am importance. Mhm. lan la góor a soog di war def fii parce que action bi normalement kii di Cobra 2 na mën a jàll ci gannaaw wër ko ndomba gannaaw bu mu ko fiilee padd ko. Mhm. carrément daw dafa war a daw laxas ci ndigli wër ko ndomba nan lay def. <laughs> vamos idem tonton Mag xool ma góor a soog accompagner ko ànd ak moom. Mhm. xar njëpp ko dàq ko xool c'est énorme ça ñaari mbir la ñuy def. bëri bi rëy na. foog ñu déglante fu mu xoolal maintenant nag fii arbitre bi dafa intervenir. Mhm. arrêté combat bi ñu ñëwaat. ñu ñëwaat encore benn round. voilà c'est la mi-temps Cheikh Tidiane fii. waaw maanaam ñaata minutes lañu bëri. bëri nañu dix minutes. dix minutes kenn daanu sa morom. ñu stoppé leen ñu noppalu cinq minutes. ou trois minutes ñëwaat. ah là là c'est fii da gis ne kon bi ñu ñëwaatee deuxième mi-temps bi. kii di Cobra bëgg ñëw abrégé combat bi. mu jeex benn yoon. ñëw dàq ko ay copain. Mhm. daf ko dàq nag ak désordre. désordre. maanaam xeexu mbedd. xeexu mbedd. Mm. góor a soog intelligent. te góor a soog nag quand même combat yi mu daan yëpp koy xoolaat ñaar tànk mbëri lay jël. Mhm. dafay def du ramassement de jambe ramasser ñaar tànk yëpp te nag dañ ne. ponkal xajul ci ay yel ndeysaan le professeur Habib Guèye le champion d'Afrique champion du Sénégal judo doon na wax ne les pneus mooy tànk yi mhm. ñaari pneus yi su peeree rek mooy rappel na si ñaar tànk nga daanu mhm. oto nag bu ñaari pneu mu peeree ah, dafay gaare taxaw kat day taxaw certifié organisateur donc fu ne nii kii di Gora Sock mu nekk di peeral ñaari pneu yi nga xamante ne moom la kii di Cobra de Pikine mbooloo yor ñu xool nu mujjee vama su dem ponkal xajul ci yel xaalala man la maa ko mën le ralenti s'il vous plaît Cobra désordre sànni gauche droit dàq n'importe comment. Ah, benn dalu si. benn dalu ci góor soog jël daan tànk yëpp. ndax moom kaw la doon sóor. waaye góor doon ci suuf bëri ci kaw la. waaye ci suuf a koy sottal ñaari tànk moom ba nekk ba sax encore song foo dem ci monde bi lañ la koy jàngal en olympique song lañ lay jàngal rampe sur le tapis faa faa faa donc mbër mi song toujours mooy ëpp ay chance am ay victoire mën a dul donc nag gars yi kon mbokk téléspectateurs yi nii la ki nga xamante ne mooy góor a soog daane ki nga xamante ne moom mooy Cobra 2 bu Pikine mbooloo jël bu set wecc Cheikh Ahmed Tidiane ko amul benn benn benn werante nos encouragements nag quand même mhm. ah Cobra waaw lutteur d'avenir la mhm. bu baax ñu mhm. ngi koy tàggat dañu koy wax tàggat waaye mbër nag foog nga juum pour daanu effectivement xëy na ko dal ne tey dese du bu mbëree nii perte combat bi moom mooy na dem di noosoo ji lutte traditionnelle bi parce que xool moom ça fait peut presque deux ans bëriwul moom Cobra 2 te demul ci mbapati bëri ji donc deux ans inactif la presque booy xool te combat bu mag la daan pourtant avant muy bëri combat bi donc daf koy permettre kon nag maintenant mu am xalaatu ne dafa war a dem Adrien Senghor bu ñu nee Mbour mu dem bu ñu nee Caajaay mu dem loolu daf koy yokk du ko wàññi mukk am compétition parce que booy xoolaat rek tax mu perte compétition góor a soog longueur année bi yëpp boo amee bu ko amul leen topp àll bi wuti ay nagam mhm. wuti ay ay cachet donc loolu dafa am importance trop la compétition loolu daal mooy li nga xamante ne moo am ci ñaari mbër yi nos encouragements à voilà merci Moustapha Gueye euh, suñu consultant escalité si jël bi numéro un diggante Cobra bu Pikine Mbolo ak ki nga xamante ni euh, moo di Goro Sok bu Dóor Dóoraat gis nañ ko nag euh, ci jël bu set wecc ci combat gu neex itam Goro Sok bu Dóor Dóoraat moo moo ca mujj am ndam kon mbokk yaakaar naa dañuy dal di dem publicité ak suñu partenaire googu di bisik laata ñuy dellusiwaat ànd seeg ki nga xamante ni moo di Fama Thioune loolu nag seen zapping lay doon. merci beaucoup Bichik la meilleure banque au Sénégal su ma koy wax euh, te demoo leen fa euh, doo leen mën a comprendre li nga xamante moom laa leen di expliqué déjà disponibilité bi nga xamante ni agent yi nekk Bichik moom lañ disponible c'est très important des fois nga woote banque mon consultant ba sonn di rey sa bopp doo leen jot renseignement yi nga ci bëgg doo ko am mm. biski nag dañoo disponible dañoo xam ne nga xamante ne ñun clients yi moom la soxla ñu ciy dox bu mu mat sëkk et à chaque fois donc doxantu leen fa wala ngeen woote ci seen numéro téléphone yi lépp loo leen soxla comme renseignement dañ ciy taxaw dañ koy def seeni soxla dañ ciy jub ba mu mat sëkk loolu moo tax ñu naw leen def Bichic la meilleure banque au Sénégal et en Afrique mu ngi ci 14 pays d'Afrique donc Bichic du ko ndaw jàmbaar la macha allah alors moo consultant wax nga ba mar tey ngaa naan. <laughs> ndox mi de moom de dafa dafa baax ci yow. am na solo waaw day tax nga amaat souffle xam nga ndànk rek ndànk bëri na fi macha allah ki ngay naan kookal la noonu. ki may naan suñu voie c'est Zahra. Zahra mm. bu ci dinañ wax ci Zahra di ndox mu baax boo xamante ni super méga potable dinañ wax ci moom bu ci kanamee moo mon consultant ñu daal jàll ci zapping comme yi ngeen koy defee à chaque fois. ni ngeen koy bëggee ñu leen koy tegalee à chaque fois zapping euh, c'est grâce à tonton Mbaye Fall bu leen koy tegal parce que moom mooy doxantu ci télé yi mooy jël li nga xamante ni mooy actualité wala buzz di leen ko tegal ngeen koy seetaan seen xol di naat on va regarder zapping et on revient sur le plateau. tey moom tey tey tey moom espionnage yaay def tey. tey damay espionné nga xam nga yéegi yàmb def ca baax nga espionné ci ay WC ci bouse tey moom tey foo jaay tey dinaa fexe ba xam tey fa ñuy àñcee ne non bouse tey kii dégg naa huit yi commencé vingt heures ji ay xaaju guddi kii baa kànce waxuñ ne ma bañ booyee ante yee ma booyam taw fi ma bañ booyee ante yee léegi man dinaa joxoon cu njànk yu yooj ko xooy ba xam fa yee ante yee espion ñaas ko ba xam ne ñuy jëfee ay mbiyam gis nga ko xooyaay bu buy mi ngi yëkk ci poids yi biceps yi ji anteñe kii yi kay mu tax gañ ku mu jàpp yi tànk yi dëgëy biceps yi dëgëy semi semi semi euh, deux semi trois semi quatre semi cinq te ma mu ñu may topp ki mu ñu ma ko topp di ko conseil ça y a ci ci kii xooy mu ngi ci mouvement jënj bi gaa yi kii kii kii kii muy tax jënj bi mu ñaay ñaay bopp guy yi ñu taxawaaye yëg mouvement njëg man entraînement bi man koy soog a gis àdduna ah paye nañu xaaye ma ñëw def naa yu ñëpp boy toj sama bii bi mu ñu ma fexe ba toj ko xaaye nag yi ñëw jékka ci biseeb ci wàññi sama bopp ay ay yeeg moom xam naa ni woyu gis ndax ñi ma ko gisee ñi mu koy yëkkati ay cinq mille ay sept mille ay huit mille non yooyu booy tëj gis yooyu jóg way sama yëkkati ñaako wayaay yëkkati ñaako yëkkati ñaako taxawaa wooy sama ay wayaay ah congratulation Mass macha allah sa liggéey rafet na man loolu moom ma gën a neex ci zapping bi muy ñay moom. Eh, ñay ñëpp la daan franchement ah. Mass moom bawal. Mass bawal seet ca kaw ca kanam ah. waaw <laughs> consultant euh, zapping bi dam ko bëgg a may sama um, coach. dama am coach léegi waa mooy suivre dama coach il s'appelle colonel Issa Niang mooy sama coach yaa ànd na super méga waaw moom day xool ci kaw ba ci suuf li nga wax dina ci critiquer moom daal ci lépp lay critiquer xam naa ne macha allah moom moo tax mu nekk ñu gën a moo tax ñu gën ko respecté foofu nga xamante ne mooy Molde muy douane di un excellent douanier macha allah qui fait un bulo boulot donc mooy sama coach dénk naa ko nag sama sama image bi lépp dénk naa ko du ko rëcc ah, il s'appelle colonel Issa Niang merci beaucoup mm. yow dañu may zapping bi moo consultant ñu daal di àggali ah, daal di jàll ci li nga xamante ne moom mooy suñu deuxième jël mm. alors deuxième jël bi tànn na ki nga xamante ne moom mooy Yanda mm-hmm. moo moo bëre ki nga xamante ni waaw waxal rek waxal parcelle mbooloo man dama ko tudd de <laughs> moo doon bëre ki nga xamante ni moom mooy Alioune seen numéro 2. bu waalo bu waalo bu écrit waalo ay ja boobu mën naa ko confirmer waaye bis du ma ko confirmer <laughs> alors ñoo doon bëre ñoom ñaar di ñaari mbër yu xarañ di ñaari mbër yu aay ñaari mbër yoo xamante ne nag moom xam naa ne tey boo ko décortiquer rek ah fii fii dina kii l'expérience a fait la différence waaw gis nga ñoom ñaar xool nga leen ñoom ñaar bu baax hmm, déjà mu leen di liggéeyee ëpp expérience moo gën a liggéey moo gën bu kii ëpp expérience moo daan parce que Aliou Seye junior aussi Aliou Seye deux du moins euh, am na vécu ci làmba ah. mm-hmm. foo xamante ñoom la dëggee deux yaa formé yaa leen jàngal ci ñoom ci leen jaar mën a bëre nga yàgg bëre yàgg daan combat yu extraordinaire mhm. ba jege woon ci benn défaite ou ñaari défaite yu tegaloo boo ñëwee reprendre sa activité ci yandaa mbër buy jóg bu nekk en pleine forme nekk xale bu war a dem yoonam. nga ñëw freiné ko rek loolu moom mooy yow jiyee nga sa expérience pour vraiment freiné ko. bu baax. bu tudd As Ndaw borom Dukumaan. ah As Ndaw <laughs> bu TFM la. non donc moom tamit. sama papa George sama papa Lamine Samba bu fekkee Medoune moo tax mu xam ko tamit. Ah. bu ci génne Lamine Samba. non dama ko ci génne kon nag seen xarit boobu ñu ngi koy may Ndiaye jële bi muy As Ndaw borom Dukumaan mm. alors tout de suite euh, retrouver euh, Cheikh Tidiane juste après ce qui suit mu daal di décortiquer jële bi ay aja Moustapha mhm. ñu daal di jublu ci rubrique euh, bu mujj bi di jël bi numéro de mhm. diggante Yanda bu Pikine mbooloo ak xamante ni moo di Alioune Seye 2 bu écurie Walo mbokk yaakaar na ñu daal di jublu ci mbir mi nga daal di ko décortiquer Yanda parcelle mbooloo seen wàllu ndejoor très en forme quand même il faut le dire jiital tànku ndejooram ngemboo ngembul weex li ba pare toftal ci li nga xamante ne ah, ngemboo ngembul bële du moins toftal ci li nga xamante ne moom mooy li naan euh, les pneus sa euh, euh, percale bi ah, wala popeline bi takk ci ay téere ba mu fees takk ci ndigg li félicien wàllu ndajoor moom yàndaa jiital tànku ndajooram Aliou Seye 2 écurie Waalo moom tamit ngemboo ngembul vert la wala couleur Cheikh Ahmed Tidiane ban la ci mhm. ngemb li ban couleur la la jox xaw na bleu <laughs> xaw na am waa nañu jàpp ne bu bële la. jàpp ne bu mu nekk vert vert fichage ou bu bleu fichage je sais pas comment on dit encore. après takk nag li nga xamante ne moom la ñu wax nag euh, euh, soru séeréer ci di ci ndigli ah. Mhm. giital tànku ñaari mbër yoo xamante ne tànk ndajoor lañu giital ñooy bëree. Moustapha ñaari tànk ndajoor yu ñu jiital lu muy tekki. ñaari tànk ndajoor yu ñu jiital dafay wane ne ñoom ñaar mhm. ñoo bokk wet. ku ci nekk si wetu bopp nga am ñaari wet yu jàkkaarloo doon. rapproché lay doon seen tànk yi dinañ jigéente ba pare seen compagnie dina neex a dugg. ñoom ñaar bu ñu ñu mokkaloon direct di droit ku ci nekk rek ku ci nekk mën nga touché sa morom foo xamante ne place bu sensible lay doon. vamos ñu dem tonton Maak. doublé triplé. Hmm. yandaa dàq adversaire am carrément ah. xale oh ñu jàppante allusion de cor ko. Hmm. c'est important encore bi nii ak seen position tànk yi ndax droitier bu koree ak loxo droite c'est important. parce que mun na ko loxo droite door loxo gauche moom mooy Aliou Seye numéro 2 bu écrit wàllo Famos ñu dem ko sol ci côté côté bi mu mënee bal ko ñaar loxo aj ko xoolal na li neex fi xam nga mooy bi nga xamante ne yandaa daf ko dëbb ñaar ko dëbb naax aj ko nga gis Aliou Aliou Seye dafa accepté. ma ne moom bi nga xamante ne mooy yandaa Aliou Seye 2 accepté. parce que bañ ba la muy indi très souvent da nga jë tenter action mu bañ rek bañ baa koy daaneel. nangu ko nag sax peut-être mooy gën a yomb ci yow mi nga xamante ne yoo la yoo la yu bëgg a jël. noonu la Aliou de accepté bal bi ak yëkkati bi mu accepté carrément nangu yandaa dem ba jeex nag ba yëkkateem jeex Aliou ba tey des tuuti parce que booy xool Aliou de mu am moo tuuti relonge. dafa accepté Famos ñu dem tonton Maak dili ko jàppante ñaari pied droit. exactement ku ne sa xës a gaño morom fii moom rien à dire ñaari mbër la yoo xamante ne ay nattangoo lañu booy xool sax dangay gis ne kon kii nga xamante ne moom mooy Yanda moo xaw ëpp laf tuuti nga xamante ne mooy Alioune Seye 2 mais est-ce que moo këpp entraînement loolu tam a yi di ak entraînement efficacité. Vamos ñu dem mu tomaag Yanda loxo yi ñaar loxo ci gaño gi léegi Yanda dugal na deux loxo Alioune Seye wéeru ci koom rek. l'expérience ça joue ici Aliou Cissé ba dafa toog di ko déglu rek wéeru ko yaa daal di chercher Aliou Cissé de contrôler ko tu vois l'expérience yaa daa évolué lu benn yoon xool Aliou Cissé de lu yaa def rek mu faxas dindi après tiim ko c'est important tiim mbër ci biir bëre ah. boo ko tiimee da ngay da ngay photo léppam moom mu ngi def ci kaw waa ngi nekk suuf di liggéey moom yaa daa mu maîtriser loxo càmmoñ bi. moom Yanda mu ngi jéem a téye di empêcher Senghor gi nga xamante ne moom la Aliou Seye 2 téye parce que Aliou Aliou Seye 2 aussi par rapport ak gabarit yi adversaire am foog moom fu mu langaamu vraiment pour mën a tenir combat bi donc mu ngi gis nga à chaque fois rek Aliou Seye 2 dafay dugal loxo bi faa mos ñu dem tonton Maak Yanda di seet jàpp da koy gêné jàpp bi nga xamante ne Aliou Seye da koy jàpp da koy gêné ngemb Yanda dugal na ñaar loxoom Aliou bu ko sol di ko contrôler mais toujours de xool ko muy xool bët yi. yóoru ci kawam di ko déglu. donc day loolu day wane ne Aliou Cissé bi yaram bi day bëree parce que yaram bu bëree Cheikh Ahmed Tidiane su leen jàppantee loo ak def da nga koy sentir. tànk bu jóg da nga koy yëg bu ndeyjoor bu jógee da nga koy yëg càmm bi su jógee lépp lu mu defee da koy yëg moo tax mu yóoru ko nii taxaw di ko déglu. di ko déglu. vraiment su dem simple contrôle ci Senghor nga encore jàppal de déglu ko rek la yandaa bal yandaa impose épreuve de force. génne ko ci biti. dafay fi dafay écopé avertissement moom kii. yandaa ba tey ñëw à l'assaut sànni deux direct du gauche du droite plutôt. ça va esquiver. ça va esquiver ko si siggi taxaw di ko xool. formation day am yandaa dafa ko bëri combat moom rek dem jël ci tànk yi da koy contrôler tout le temps c'est le cas de ba léegi defagul benn action daf ko contrôler rek. bàyyi ko combat bi bàyyi ko combat bi il dépense bàyyi ko combat bi il dépense. bàyyi ko combat il dépense Alioune Seye 2 conserver ay force am rek déglu ko bàyyi ko muy bëre. vraiment suy dem c' est l' expérience ah gars tout le temps rek ñu ngi koy bloqué xool crochet bii. armologue téye ko carrément après yóotu. fële ci suuf di téye chaque fois rek Aliou Seye 2 mi ngi fu mu langaamu pour pour adversaire bi nga xam ne son jeune adversaire bañ ko manipuler. c'est important Aliou Seye 2 tactique bu mu bëree ci combat bi. vamos ñu dem tonton intérieur extérieur. xoolal ma ngay armal tëj loxo yi léegi benn yoon moom ki nga xam ne Aliou Seye 2. il a gêné dafa gêné Yanda ba keroog li xëy war a xaw. la indi. exactement dafa le g dafa xam ndoxtu nag gis nga fu téye la nga mu jàpp. lu mu gis téye wéeru ko ba xor interception lalli laay le contrôle le G2 yootu gañoo yandaa bañ ah yandaa koy imposé rythme léegi gis nga léegi yandaa nag mu ngi koy dem di bali di ko imposé toujours rek yandaa mi ci épreuve de force. bëgg ko takk aussi. bëgg ko takk exactement mais bu ngay jéem a takk nag gis nga Aliou Seye fu mu dugal loxoom. parce que tout le temps rek Aliou Seye 2 foog moom fu mu accroché wu ba nag àggagul. mais tànk bi c' est bien engagé tànk bi nga xamante ne moom mooy tànku yanda c' est bien engagé entre les deux jambes. vamos ñu dem tonton Mag ko xalelaa fii nag moom pratiquement booy xool Aliou Seye junior 2 dafa won yandaa wet pour def ko li ñax mboot mais mboot bu aussi mboot bu nar a jekk la war a doon parce que contrôlé na ko ca kaw fële. crocheté na ko bu baax a baax ba pare ba pare mu ngi téye loxo bi fii ci suuf bi mhm. parce que lii dafa am solo trop fii nga xamante ne moom la Aliou Seye téye exactement mhm. bu tiiree rek peut-être adversaire bi dafay def ñu naan torsion vamos ñu dem tonton Mack ah ils ñëwaat nañu combat bu neex ah mhm. ñaari pied droit toujours yanda à l'action même stratégie lañ di toujours yanda dama koy jàpp dama koy daan dama koy jàpp dama koy daan maa ko ëpp doole aha ah. sànni benn direct alice Cissé junior fa fël ko ba pay di xool c'est important kurpañ bu ñu la koy da nga koy xool boo ko dóor da koy xool sànni na direct mu sacé ko carrément ba kurpañ bu romb ba tey mu di xool fu mu def moom ki nga xamante ne mooy Aliou Cissé 2 tontu Aliou Cissé 2 commencé nag léegi def la bagarre mais avec beaucoup de méfiance il avance sans prendre de ah oh là là mais yii c' est extraordinaire quand même yanda et mu dem toujours à action ñu fàttali leen nag peut être que ne bi ñu commencé naan comme action yi ba léegi kenn rek mooy def action mooy yanda il a pris le combat en charge il voulait faire le combat par la force dem na jàpp ñaari loxoom ki tànk ki nga xamante ne mooy Aliou Seye 2 mais Aliou li ma la rek ba tey mi ngi contrôler adversaire am mi ngi koy bàyyi muy bëree mi ngi koy contrôler di ko contrôler di ko contrôler voilà vamos ñu dem tànk ci kaw waaye teguwaat na. ah teguwaat na ah xam nga tax mu tegu. loxo ba mu jàpp sa gannaaw. ba pare bàyyi ko tànk ba. ba pare loxo droite bi di contrôler di la tête c'est important parce que bopp bi tamit mooy liggéey liggéey bi. suñ ko bloqué rek dootoo mën dem fenn ah. Fama su dem tonton aha maintenant lay gis nga Aliou Seye am na ngembale ca gannaaw. contrôler adversaire am à l'intérieur extérieur tiim ko pare nag sukku ñaari homme yu ko mbaar pour diri ko mhm. normalement fii da ngay gis ne Yanda il est puissant am na doole c'est un jeune su mu sukk nii war na fa mën a génnaat mais bopp bi pratiquement mi ci biir bopp bi nekk ci diggante nag biiru ki nga xamante ne moom mooy Aliou Seye 2 moo koy empêché maanaam bopp bi dafa doon génn à droite wala bopp bi génn à gauche mais tant que boobaa ngi ci digg bi rek Aliou Seye 2 a arrière di ko mbaar di ko diri pour mu julli ndax dina julleem déet dara waruñ ci vamos dem si gina la force si gina gis yëkkati na benn tànk mhm. Aliou Seye 2 yëkkati benn tànk mais Aliou Seye 2 ba nga sëq fii de fa mu téye nii nag pakk la handicap la ba pare di kontu ko loxo bi ci suuf Aliou Seye 2 nag quand même il faut dire que combat bi bëree na ko ak sago sëq gaño téye loxo ki ñu sa xësa gañu tey loxo nga féete suuf nag foo jëm jéem a génn ci action bi lay jéem a def moom kii nga xamante ne moom mooy yanda dafay jéem a génn ci action bi nga xamante ne danger bi nga xamante ne moom la nekk moom yanda talatul daal fu mu toll nii ah non génn ci lay tal fu mu nii génn ci action bi vamos ñu dem mhm. génn voilà si gën a ah waaye enchaînement la exactement mhm. c'est ça l'expérience attaque contre attaque bàyyi na ko mu def dis attaques peut mbaa mu ëpp ko moom yanda nga gis ne benn attaque u Aliou bi rek moom dafa def les détails percé sur les aisselles. bëtt na ci pokotaan bi carrément jàpp na pokotaan tànk bi carrément yandaa mi ngi yóotu geñoo jàpp du mën a jàpp yandaa mi ngi ci kaw yandaa nag moo doon féete kaw moo doon féete suuf tey ñu féete ko suuf. donc da nga gis variante bi. donc yandaa kon da ngay gis ne kon mën naa féete suuf waaye mënul ñu féete ko suuf donc. adversaire bëtt na ko ci suuf. carrément téye tànk bi ba pare gàll ko loxo ba ca kaw xool loxo ba mu ko gàll cravate. ci kaw. téye ci suuf ba ci pokotaan c'est très dangereux ñu ngi koy def ñu ngi def ci baran néew na. ah bu ñu saagee fi ne c'est vraiment compliqué très compliqué pour son adversaire vama su daam fa bal na di mu jëg bëtam rëcc na action ba gis nga rëcc na ko ça c'est les entraînements ak l'efficacité mhm. donc gis na ko xale yi bëri nañ bëri bu rëy delluwaat jàppanteeti yi Aliou Seye junior Aliou deux du moins léegi mooy féete woo jàpp gaño yi léegi nag yaa ndaa jàppatul dara Aliou Seye mooy jàpp Yanda jàppul léegi ñu ngi ci temps fort Aliou Seye ah, ah Aliou Seye ñëwaat na. la deuxième action. embarqué deuxième action Aliou Seye 2 ci combat bi yëpp. d'après nag bi adversaire am Yanda dafay une deux trois autant de fois ay ay ay ay assaut mu ko moom def na deuxième assaut bi même chose loxo ba ca poxataan ba encore poxataan tànk ba ba ca poxataan ba percé sur les donc Yanda position bi amoon léegi ba mu rëcc amaat est-ce que bu amaatee dina ci rëcc wala déet moo jar laaj. action dama ko def benn yoon mu rëcc du ko defaat. su ko defaatee mun na am dara xew fa. vamos ñu dem. <laughs> na ko léegi nag léegi nag euh, Aliou Seye 2 c'est un très grand technicien c'est un très grand lutteur mm-hmm. parce que bu continuer daw ak moom day rëcc bu njëkk bi dafa daw ak moom mu rëcc. Mm-hmm. bu ma jël ko braqué. ba pare takkoo ànd ak moom. loxo baa suuf ba tey dindiwu ko loxo baa ngi ca kaw ba tey mais daf ko braquage mu def noonu demi cercle bu ndaw boobu rek mooy indi effet bi. dafa mos ñu dem tonton maag oh voilà. <laughs> ah là un beau combat. il est euh, le bëtt ci bokkotaan def cercle. braqué ko. Mhm. xool fu mu téye ci ko. Aliou Seye a tout simplement lutté efficacement comme ni ñu koy waxee. Mhm. xelam. bëri ak sagoom bëri ak expérience am waaye nag ñu xam ne nag indi na nag quand même entraînement bu extraordinaire pour mën a am lii. Mhm. parce que euh, yanda bi mu gis à ses entraînements. état physique moo ko gisaloon xaatu moon benn yoon Aliou Seye inquiété ko mais nag laa efficacité Aliou Seye feeñ na ci Aliou Seye 2 feeñ na ci combat bi trop trop kon bokk Moustapha ma nga noonu jël bi numéro 2 diggante Yanda bu Pikine Mbolo ak Aliou Seye Boyikari Waalo di ab combat bu neexoon amoon solo loolu gis nañ ko nag euh, li nga xam moo di foot de jeunesse bi mujj ñàkk ci expérience euh, mi nga xam te ne Alioune Seye moom la daal di indi ci euh, ci plateau bi ànd seeg femme ñàkkul ni incha dana am yeneen yi nga xam te ne indi laata nag ñuy jeexal émission bi man nag yaakaar naa dama leen jox dox daje incha fa altine bii nii di ñëw seen beneen émission Oeil kon mbokk jërë ngeen jëf mbokk yi. merci beaucoup cher Ahmed Tidiane chérie Pauline merci beaucoup à toi ni ngeen décortiquer yàgg tonton dafa amuñu lenn luñ ciy teg lu dul no comment merci jaajëf. alors mon consultant bala ñoo jeexal dañuy daal di jàllale rek loo xamante ni dafa fas yéene am incha allah le 30 avril 2017. Luc Nicolaï macha allah moom du jóg ci di ñu bette mbettu mbëgteel mbégteel à chaque fois donc daf ñuy surprendre agréablement mu fas yéene organiser ak l'abbé yi nga xamante ni ñoo nekk église Sainte Marthe de Mbour. ñoom la fas yéene rëkkalool euh, organiser li nga xamante ne moom mooy ay mbapat mm-hmm. léegi mën nañ suivre élément bi après bu ñu ñëwee nga am loo ci sànni ay ca ci paroisse Sainte Marthe Mbour euh, ku ne Sainte Marthe rek xalaat jigéen boobu ak ay frère am ak sœur am yi daan dalal Jésus donc loolu mooy paroisse hospitalité mbuur nekk aussi ville hospitalité donc lu dul bala ñoo commencé ñu dalal leen ak jàmm fii ci paroisse Sainte Marthe Mbour événement bi nag euh, daanaka dafa commencé samedi yemul rek ci journée lamb bi suñu sañoon ne ab week la mhm. boo xamante ne dañ koy ubbee lu ñuy tuddee journée d'intégration ku dégg journée d'intégration mën a xalaat ne ay kuréel ñi ñuy boole pour ñu mën a gën a xamante gën a duggante kuréel yooyu ngir mu gën ci seen diggante. ngoog kuréel yooyu nag dinañ jël téeméeri xale. yoo xamante ne ci ay daara la ñu sokkee ko ñoo xam ne seen njàng yëpp su ma sañoon ne ci mbirum lislaam lañ ko baase boole leen nag maanaam maanaam seen mbokk jullit yi. voilà waaw dama bëgg nga toj yax bi ñu xam ni. seen mbokk jullit yi la dina dina rebondiraat ci terme boobu mbokk. waaw. ak boole leen ak téeméeri xale yoo xamante ne ay xale catholique lañu su ñu demee ba weesu affaire de chrétien ak musulman dañuy gis ne ñoon ñëpp ay doomu yàlla lañu des fils de Dieu et en tant que tel on ne peut que être des frères et sœurs baax na nag xale yi dès leur jeune âge ñu inculquer leen mbir moomu mm-hmm. fexe ba ñu màggee xalaat yooyu. xalaat yu rafet yooyu. ils vont apprendre à vivre ensemble. ci paroisse yëpp daa am ay conseil pour les affaires économiques maanaam ñoom ñoo saytu euh, lu dem ci koppar yi wala lu dem ci structure yi ñu mun a andi xaalis. comme que suñu paroisse bi da doon yàgg organiser làmb ñu ne pourquoi pas ñu yaatal ko. ñu yaatal ko ñeme ko aussi ak Luc Nicolas yi ak yeneen partenaire yi assuré parce que am na ay yeneen partenaires comme voilà Shell et tout tout tout voilà nañ ci dellu siwaat donc loolu moo tax ñu ñeme ko après bon ñu def ay concertation yu bëri ba trouver euh, un terrain d'entente donc loolu moo waral bés bi aussi ñu ngi gërëm aussi téléspectateurs yi yëpp ak ñu fi ñu fi teew pour euh, vraiment magal bés boobu bés boobu nag day commencer samedi comme ni ñu ko waxee mais samedi bi aussi dafa am thème engageons-nous pour un environnement sain en partenariat avec Luc lu waral thème boobu suñu njiit église bi di Pape François dafa benn benn encyclique bu ñuy wax Laudato Si mhm. te Laudato Si boobu mooy lan ñu euh, protéger suñu environnement bi mhm. suñu nature bi la nature mu nekk mu koy woowee ci nasaraan la maison commune mhm. la maison commune nag ku ne ci ñun am na ci wàll. voilà parce que bu ñu nekkee ay nit tey maison commune bi moo moo moo tax. Mhm. donc ku ne ci ñun devoir la ci moom obligation la ci moom gis nga borom fulaar yi mu nekk scouté guide mu nekk GIEC mu nekk CVAV ñoom ñëpp aussi dañuy euh, yëngatu ci loolu. Mhm. pour setal suñu ville. setal suñu gox setal suñu yaram aussi. jàmm fii ci paroisse. merci beaucoup ñii nag ñoo nekk euh, waa église Sainte Barthe de Mbour dañu fas yéene organiser benn mbapat boo xamante ni dafa fas yéene am incha allah le avril maanaam dimanche bii di ñëw donc ngeen jàpp ci bu baax a baax a baax ñoom xam ngeen ci lan la ñuy œuvrer tout le temps pour bien-être population bi xam ngeen bu baax a baax ci li ñuy œuvrer pour ñëkk ñëpp nekk si jàmm ak salaam donc macha allah Luc Nicolaï nag moom di ambassadeur moom de la paix moom ci loolu lay doxaa chaque fois lépp lu nga xamante ni day gën a boole nit ñi rek boole catholique boole julli di boole ñëpp ci seen biir rek ñu nekk benn moom ci loolu lay dox donc raison pour laquelle ñu organiser mbapat bi ngeen war cee jàpp bu baax nag daal di ñëw fekkee ko participer ci euh, bokk ci. muy mbappat bu fas yéene am le avril ci Mbour lay xewee donc mise bi dafa nekk mise u 5 de francs CFA. mbër yëpp xam naa ne fa lañ naka daje ji. loolu du ay caaxaan. wax nañu léegi ne franc day bëri ci 800000 <laughs> francs estat mais fee nag mais pour nga jël 5 foog nga daan fukki nit fukki nit ak juróom. du yomb de combat euh, lourd am léger. mais mise 5 millions kenn du ko tardé. waaw tamit dafay nga compétir te di mën a am xaalis donc région de Mbour allah. mooy accueillir lutte traditionnelle danañ fa teew. Mm-hmm. assisté ko Luc Nicolaï indi ko tegal ko fii ndax partenariat bi ñu nam ma def ci diggante l' émission L'Oeil du ak ki nga xamante ne mooy Luc Nicolaï c' est bientôt incha allah. incha allah si magnifié yoo xamante ne dafay nekk lu extraordinaire. Mm-hmm. entrée lamb yi nag faama 2000 francs la 3000 francs et 5000 francs. Mm-hmm. ñu tegal leen mise 5 millions de francs CFA. incha allah à Mbour. Mm-hmm. incha allah jox mbër yi nag bonne chance. Que le meilleur gagne. Que le meilleur gagne. macha allah merci beaucoup mon consultant l'émission tire sa fin on espère que enjoy ngeen ko ak ñun bu baax a baax on espère que lépp lu ngeen namoon di gis ko ci suñu sport national muy la lutte am ngeen ko ci. di remercier ñi nga xamante ne ñoom ñoo ci jàpp tout le temps ba émission bi di mën a sorti comme Cheikh Tidiane Diagne kooku amuñu fayam chérie Pauline il est super disponible et super gentil ñu ngi koy jaajëfal. l'équipe technique aussi ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax ñoom ñoo ciy jàpp ah, ba bi mën a am teg lépp nag ci loxoy tonton Mbaye Fall tey maa aussi see nekk fi waaye ki ko remplacé sotti ceeg def la ci moom maa aussi ce sont les meilleurs macha allah Pape Samba je t'ai donc muy ki nga xamante ni mooy tonton Mac ñëpp xam nañu ay jaloorem donc un grand merci à tonton Mac moom mi ñu que Maodo daa demoon Touba. te dafa sonn il est super fatigué moom ci lépp lay nekk xam euh, koy jox à chaque fois donc jaajëf merci beaucoup à tonton Mac merci beaucoup à l' équipe technique ah di jaajëfal ki nga xamante ni moom mooy Medoum Diouf sama séeréer bi mhm. xaritu euh, As. Hmm? Mhm. <laughs> xaritu As Ndaw borom Ndukumaan merci beaucoup Papa Naar kooku nag mooy Naar Diop merci beaucoup amuñu fayam moom macha allah moom day caméra ba pare di di lijjanti li nga xamante ni mooy nekk ci plateau buggul benn faay lépp la bëgg mu sotti. merci beaucoup soo sama xarit. fàttali jàppale leen ba ah baay ayoo bàyyi bàyyi bàyyi jéggalu bàyyi ci am sama xarit bu baax bi ah donc merci beaucoup tonton Mbaye Fall le producteur exécutif lépp teg nañ ko solo ko et un grand merci aussi à Boubou Ndour ah. donc moom mu ngi jaabante tout le temps dafay waaw daf ciy jàpp ah. tout le temps day bëgg émission bi euh, dem à la perfection mais macha allah liggéeyam rafet na fi lay toog ba x time du ni bi man damaa foog ni sax ci télé bi la dëkk ndax man comprendre lu ma yenn yi donc merci beaucoup à Bouba Ndour merci beaucoup mbokk téléspectateurs yi di remercier Fashion Travel by FT numéro téléphone bi dina jàll di ngeen ko am 70. 17 326 12 35 la di remercier bi mhm. di centre de soins capillaires nekk fii juste Liberté 6 sur ak ki nga xamante ne moom mooy le colonel Issa Niang de la douane jaajëf on vous souhaite une excellente soirée salaamaaleykum wa rahmatulahi